mbokk yi ak digital store indi tina gamme smartphone ak tablette Android yu bees tax dëgër këcc di ay téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Crosscall daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala T5 wala s juróomi at lañ leen garanti looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel. M5 X5 T5 ak S4 ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen a dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq daw leen gaaw ci sunu boutique showroom bii nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la Corniche ci numéro bi 33 823 77 87. xabaar yi la ñu leen di baaxee tey ci aljuma ji yem ak fukki fan ak ñaar ci weeru ut ma di leen dalal jàmm danañu leen dikkal ci nu mu gënee yaatu ci naka la étudiant u IAM mi def ba rëcc dugg biir France te kenn mënu leen gis position wu Pastef ci demub député Pape Diop ca kuréelu nguur gi danañu leen koo xamal daañu leen faram-fàcceel ci digg xibaar yi jafe-jafe woykat bi di Maada Ba di jànkonteel ñu ni borom këram moo ko ko teg bokk na a googu ko ñépp xamee tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirluwaas lëf bàkk ba jëpp ma daal di leen koy yaatalal. mu ngoog bàkk ba jib na nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo dañu teewlu ci dakaar Buzz dal leen jàmm ci xibaar yi. agent yu brigade commerciale des douanes bu Kër Ayib subdivision wu Kaolack daal dinañuy teg loxo ab loowu garab ñaari fetel ak yeneen i produits garab ya ñu defoon ci ay sac de voyage ba ñu ko xayma mi ngi toll ci cent soixante et un millions ci sunu koppar yeneen produits ya sept cent vingt mille saisi baa nga amee ca Ndiba Ndiayeen ci département wu Nioro du Rip foofee sax unité douanière ga tegoon nañu fa loxo juróom-ñaari colis wu faux médicament yem ak cent trente huit millions ay semaine ci ginnaaw la woon jàpp nañu it benn camionnette type Toyota ca Medina Sabax mu defoon ay garab yu baaxul kawteef moo am ca commune Ndande bu nu sukkandikoo ci xibaar yi ka mi da daan tëkku baayam fu mu toll ni dana ko faat waaye nag ñëpp jàppee woon koy waxu kese ab ñàkk déggoo gu ndaw a dox seen diggante bàcc jël jaas yi di ko yenn ak jam baayam góor a kam yi di ab baykat ba ni muy ñàkkee bakkanam loolee a nga amee ca village guy meewo féete ca Kébémer takk der yi teg koo loxo waral di drogue muy wax ni rek da koy jëfandikoo loolee terewul ma nga jamono ji en garde à vue ca ay bërëb bi brigade de gendarmerie bu Kébémer ngir lu ñeel l'enquête bi takk der yu brigade du Kër Momar Sarr ca Louga da dinañuy daanee lapp dealer bu mag bu du yëngu ci njaayum yamba ca village wa Diaserna bi waajaa ngi wuyoo ci turu Ahmed Ba ñaari kilogramme yamba la ñu fekk ci moom ba doon ko jàpp gannaaw ba ñu ko boolewee ma nga jamono ji ci loxoy yoon ñu di wëyal l'enquête ba mbir mu doy waar moo amoon ca cérémonie cérémonie officielle u 22 édition bu màggalu Mbàkke Baari bi xalif ba moo jox kàddu El Malick Ndiaye ma di secrétaire la communication bu Pastef waaye sous-préfet wu Sagata Jolof ba di Yankoba Sow moo ni rek loolee du fa amee bu sukkandikoo ci source a moo mujjee am dëgg ndax responsable Pastef gi jëlul kàddu nag ginnaaw sous-préfet bi bu weesoo xalif bi keneen ci ña fa newoon rek mënul jël kàddu El Hadj Malick nag nee na sous bi da doon politique ngir tuutal seen coalition bi responsable responsable politique bu APR bu Thiès bi di Habib Niang àdduna rek ci décision nga Pape Diop jël di ko ndokkale ci njëlbeen nee na loolee dafay wane ni rek mi ngi xalaat ëllëgu réew mi la mu def nag ku dul jàmbaar dëgg du ko mën muy woyal naan duñu nangu di bàyyi réew mi ñamuy wax ni rek seen ay gëdd dafa muuru amuñu benn mbëbët bu di jëmale kanam réew mi Habib Niang teg na ci ne ñi bëgg rek dëkk bi danañu ñëw Benno Bokk Yaakaar ñu ànd ak jiitu réew mi Macky Sall liggéey ngir émergence su réew mi Serigne Mountakha Mbacké laalewul benn yoon ci joxante loxo ga Pape Diop def ak patron wu Benno Bokk Yaakaar gi di Macky Sall leaderu bokk gis-gis gi nag donte Serigne Mountakha recevoir na ko àllarba gi weesu ca Diourbel xalifa général Mouride takkewul ci décision ga Pape Diop jël xalif bi nag source ba nee na régulateur social la dafay firnde neutralité am saay su ne ñëpp lay dalal amul xàjj ak seen Pape Diop nag alxemisu démb gi la jël lu dem si mouvance présidentielle gi ñeel quatorzième législature gi ndax kat la mu jàpp moo di ne ku jégi bu ñu leen bàyyeewee assemblée gi ci ab crise institutionnelle la ñuy jëm ak ñun teg mu ne décision ga mu jël ànd woon ak benn pression fukki étudiant ak ñett yu institut africain de management ñoo daw dugg ca biir France gannaaw ba ñu leen yóbboo woon pour voyage d'étude ñu waroon a del si Sénégal juróomi fan ci weeru août libération di ñu xamal ni rek ba ñu yeggee France police des frontières dañu leen téye woon ndax incohérence yu bari yu ñu nemmeekoon ci seen ay kàddu benn kuréel yay xeex àq ak yelleefu doomu aadama consul Sénégal ca Paris garantir leen ñu yeewi fukki étudiant yaak juróom-ñeent niki noonu nag police des frontières tegal leen ñaari condition bi si njëkk di ne étudiant yëppay bokk fa ñu dal ñaareel ba di ne na yi ñoom ñëpp moom it mu defee ko noonu waaye daal ba su ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet benn étudiante réer leen réceptionniste l'hôtel ga xamal délégation bi ne rek gis na ko ba muy génn ci guddi gi ca ëllëg sa tàntaay ku jigéen ki daal di avocat bi ni ko na ko delloo passeport am euh, ñu rek foog ni fa la yem juróom-benn étudiant demaat bésu le 2 ak le 3 août ba ñu xamee ni rek ñoo ngi leen di surveiller ñu bàyyi fa seen ay valise euh, juróom-ñaax ñoo daw ñaax ña di ay jigéen fukk ak ñaax si yasa des nag ba ñuy ñibbi si Ndakaaru dañu leen escorter l'aéroport ga ba ni ñuy duggee ci avion gi leaderu Pastef geek ay ñooñam nangoogu ñu wàddu ci demu Pape Diop ca Benno Bokk Yaakaar na ko El Hadj Malick Ndiaye ma yor seen kàddu di xamle euh, nee na ba Idrissa ba ca Ousmane Sonko dañu leen woon rek bu ci kenn wax ndax ku ne am nga sañ-sañu def tànneef bala neex tey it noonu lay demee ci kaw Pape Diop moom la nag benn siège la amoon ci élection législative yi ku jegeek nguur gi nag ku ne soxla woon ku ko mottali Pape Diop mujj na dem ci mouvance présidentielle gi. sunu ay naataangoo ñoo di ñu baaxee ay xibaar ñeel woykat bi di Maada Ba di ñu yëgal ni rek ci guddi yu bët setagul la nekk ñetti at ci ginnaaw nag Maada dafa amoon borom kër ñëpp yaakaaroon ni sax sëy neex xamle que nag sëy ba at dong la def nee na ñu jëkkëram ja moo jékki saay rek abandonné ko ba ko ca kër ga moom it mu toog fa di ko xaar ñaari at ci kanam waa ji daal di ñëwaat nag ngir may ko baatam loolee doyul ci moom mu yónni ay huissier kër maada ak plainte gu mu ko yónnee ngir rek ñu génnee ko kër ga mujj lu metti lool ci moom waa ji sax nee nañu tàmm na xeetu jëf yu ni mel ndax noonu la def ak rek juróomi soxna yamu jotoon a am yépp waa ji ab directeur société gu mag la fii Cissé mooy xamle la tax rek mu wat boppam bi gannaaw waxtaan mu sekk ak sunu benn naataango Sara la ma tontu Awa Gaye moo di ne rek su fekkee boppam bi lay wax te tayal dong ko ci dugal nee na kawaram dafa guddoon waaye daal bu daan def émission Kenkeliba ci RTS nga ko ñëpp xamee da daan yeewu 4 heures du matin di wàcc 8 heures mënuloon gérer boppam bi ci la jëlee rek décision watu fajar gi mu def gelam génn kër ga jamono di dox nag ba yëf yi nekk rek style gu mu mënatul soppi tàggat yaram lañu koy ndar keppee leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi CNG dagg na 4 millions 990 mille kii di Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ña doon jàmmaarloo di ber gi weesu ca arène nationale Balla mi am ndam nag ñàkk na 2 millions 580 mille Gris Bordeaux ñàkk na 2 millions 410 mille ni ko Les Échos di xamle ñoom ñaar ñëpp la ñu ñàkk mi ngi yemook 10 pour cent ci seen payoor la ñu leen tegee ay daan yemook la ñu ànd ak lu ëpp la ñu leen mayoon ci ay nit ngir ñu ànd ak moom ak tam waxtu ya ñu passé ci seen wàccaay xar fa xuufa mbokk yi li la ñu loon tey ci xibaar fii ci Dakar Buzz daañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës ba lëg incha allah. Avec Digital Store, vous allez enfin réaliser vos rêves grâce à la toute nouvelle gamme de smartphones et téléphones Android dernier cri de l'entreprise Crosscall. Vous n'allez pas nous croire, c'est la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile qu'un constructeur de télécom met sur le marché digital des appareils téléphoniques garantis cinq ans. C'est le M5, le X5, le T5 et le S4. Les produits Crosscall sont d'une solidité et d'une garantie que vous puisque prouvé aux normes militaires et doté d'une autonomie largement suffisante avec alarme en cas de danger. Les seuls appareils avec anti-choc. Ils sont étanches dans l'eau, du jamais vu. Les appareils Crosscall vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles.